pour nekk candidat préélection présidentielle bu 2024 j'ai rencontré pas mal de responsables du parti de l'APR ñoo nga xamante ni ay kilifa yoo xamante dañuy wax ak Macky chaque jour ou bien saa ñu ko bëggee ñooñu bu mii mi recevoir wax ak ñoom ci candidature président Macky non tu sais troisième mandat bi moom vraiment c'est pas possible yi ak ni du ñoom la ñu waxal day yóbbante te yooyu day egg ci nopp président Macky ci man élément yi gën a tax ma gëm ne Macky dafa bëggaat troisième mandat ci la bokk parce que lui il savait que Mimi dafay présenté wu d'ailleurs Mimi bi mu nekkee CSE CES e comme comme le dit Idrissa Seck CES <laughs> e, donc euh, créé woon na benn benn benn jokkoo CSE jokkoo sa e jokkoo pour créer un million d'emplois CSE sa vocation c'est pas de créer des emplois et là moi lecture moo ci defoon c'était des jeunes peut-être yu mu bëggoon coopter pour préparer parrainage c'est de bonne guerre il avait benn ni tout le personnel de bi yoon gérer personnel euh, euh, parrainage bu Macky Sall bi ci en 2019 ñu ci bëri Macky Mimi da jël utal leen ay contrat dugal leen CS il a il a am na droit nekk candidat mais loolu ci li tax Macky Sall écarté ko loolu ci la bokk moom tam comme génn dégg nga discours bi mu def bi muy génn Eh, du ngi def benn discours amul benn moo bu mu bu mu remercier président Macky ce qui est toujours da ngay dégg son excellence nous remercions son excellence le président Macky Sall toujours mais jour boobu boo dégloo donalité discours am tuddul Macky Sall il s'est elle s'est adressée à la jeunesse à la population sénégalaise après mu remercier presse bi def le bilan de ce qu'elle a dem yoonam doon jox nag rendez-vous du bàyyi et Mimi elle est mu ngi nekkoon en train également de regrouper les forces de la gauche ñi nga xam nekk ci gauche soit dans l'opposition soit dans le pouvoir pour ñu créer benn grande famille de la gauche pour mu mën a dem dem élection présidentielle Macky yëg na loolu mu dax ko et léegi mi ngi continuer combat am fi mu waxee euh, euh, conférence euh, déclaration bi mu def récemment ci NDI xaw ma National Democratic Institute ki ko créé mooy Madeleine Albright nekkoon na ancien premier ministre Burkina foofu mi mu waxee foofu dafa saf dafa metti xam naa juróom Macky am na lu ko naxari parce que foofu ñooñu c'est une très grande organisation moom te ni buy nekk di lutter pour la limitation des mandats en Afrique de des beaucoup pays d'africains surtout les les de de euh, des pays anglophones ci lañ bokk comme le Ghana ay Nigéria ay Sierra Leone ñoom ñu seen anciens présidents yi boo duggee seen site internet da ngay dégg ñuy plaider pour que ñu mën a limiter les mandats en Afrique donc Mimi dafa dafa profiter d'une occasion pour lancer un débat pour encore gêner le président de la République parce que xam na ni moom li muy wax gëm na ko Macky warul présenté wu pour mu mën a multiplier ses chances am ci basew APR bu màkk akarté woo peut être yaakaar na dina am ay chance et elle est de se battre normalement et légalement pour bokk kon cette posture de Mimi euh, ko waxee ni nga wax ni mu amee euh, enjeu ban impact tey jii la mën a am par rapport ak président de la République non moi je suis sûr xaw ma euh, xaw ma Macky quelle a sa réaction lu mu ci xar mais xam naa ni lu ko metti la ndax daf ko vilipender sur le plan international daf ko vilipender à un moment où Alpha Condé mi ngi doon def le même jour où la veille prestation de serment avec li tout ce qu'il y avait comme enjeu et comme euh, comme problème ci candidature am daf après quelques boobu moment je pense que Macky venait de rentrer de la Côte d'Ivoire où il était il donc au moment où ñu ngi autour de la limitation des mandats en Afrique mu am Mimi wax ce discours là ak fa mu ko je sais que aujourd'hui le camp du pouvoir ou même le